li nga wax moom lay def mu ngi di topp loolu laa wax Ablaye mu ne ma père amul problème li nga wax moom lay def tooñ na ma sax parce que nee na ma yow <laughs> suñu suma jaam nga man bon jaamu bël nga bon entre peu de séeréer ça se comprend donc euh, pour mu si biir mooy que ne ñu seetlu woon am kamis bon sawar na toog dem mu fóon ba démb ci ngoon pare woon na pour ñëw teewe lii mais nag xam nga ñoom aussi ak seen activité am na yoo xam ne mënu ko di teewee fépp fa muy yebale euh, xam naa CNG fi mu jëm du yem fii parce que CNG na toogaat waxtaan suñu biir ak yaatal ndaxte mérite ngeen nekk ay ambassadeur de la paix ambassadeur de la et ambassadeur bi fair play muy Modou Lô ak ci géew ba fuite la pour wane ngeen waxante kii ne combat bi jeex kii ne ko ak bu tax joxee verdict lëngante boobu moo nekk nii ci lii l'histoire retiendra ça parce que kenn xaaru ko woon kenn xaaru ko woon yaa doon xaar neen bëri waat kii mu doon wax que jeexul war na jeex mais tout ça baat bi leen ñi rek dafa ñëw dafa ñëw ngeen daje ça veut dire seen ñaari xalaat waroo te c'est important moo tax CNG ba mu réunion yi mu ne lii am dimanche ñu doon xaar ne day toj dana lakk dana yàqu dana nangam dana nangam yàpp ngeen leen wane loo xam ne kenn kenn xaaru ko wax loolu ak mbetteel la ci bànneex donc vraiment ñu ngi leen di gërëmaat loolu moo taxoon ñu ne tey daañu daje vraiment symboliquement yii nii du dara mu mun na ci jënd sang amaa mun na ci jënd sang mais jëmmal bés bi wan leen ne Sénégal dans son entièreté kontaan na ci seen comportement te ñu bëggoon xale yi nekk seen ginnaaw ak seen morom yi ak seen mag yi ci lamb yi ñu roy ci sportivité boobu roy ci fair play boobu Sénégal fi loolu la jàmm dal temps yi macha allah mbër yu mag yi ñu ngi def lu rëy ci mbirum ndox jàmm te loolu aussi dañ koy magnifier bëggoon ñi fi nekk muy écurie yeeg manager yeeg euh, promoteur yeeg et la presse que je remercie et n'est-ce pas pour son accompagnement ñoom ñu jàpp ci loolu. ñu gën a taaral rek te aussi gën a wax suñu làmb ji nga xam ñun ko ko loolu vraiment laa amoon lu ma wax di leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax a baax ndaxte toogaay yu yàgg na trophée yi je crois que ñu ngi nii am na ay grand bi fi nekk ñu jox leen ko am na ay tableau yoo xam ne ku ci dem aussi mën nga dem vraiment def ko ci sa salon je crois que photo yooyu bu fekkee ne ana yi ñëw dañuy jox Lamine Thiam mu déroulé protocole bi. ah Lamine monsieur le président. jërëjëf monsieur le président kontaan nañ bu jërëjëf président lii daal lu rafet la lii daal lu yell la waaye nag mbër na ngeen ci ñii de waxuñu nag nga def sa bêtise ba pare ñëw daal la nga dëkk accolade ni def naa fair play de parce que xam nga nga def sa li nga bëgg a def yëpp ba nag mais après bu ma paree rek buñ ma daanee naan la fi ndax ñu delloo ma affaire bi ndax dama def naa pré-pré du noonu de c'est pas comme ça. léegi dañuy jëm ci décoration yi ñu woo monsieur Khalid Kadiaga moom ci boppam mooy jël bu Ama Baldé jox ko xaaj Ama ñu lay woo fii di woo xaajut ko ñu fii Ama si jiitu ko Thank am na it merci beaucoup merci Khadim merci attendez attendez attendez attendez xam ngeen ci xaar leen am na protocole bu ñu def Lamine euh, dafa yoo xam ne dama ko bind te tudduma leen muy force de défense et de sécurité police gendarmerie ak sapeur pompier ils sont représentés par le ñan chef qui si vraiment ñu leen di gërëm leen jaajëfal bu baax a baax a baax baax sans vous vous n'aurez pas résultat là vraiment jërë ngeen jëf gàcce ngàllam bay. merci monsieur le président. Euh, Modou Lo s'il vous plaît. monsieur Dior s'il vous plaît. léegi le financier de l'AREP am na lu muy def ci kanam tuuti voilà applaudissez tàcc leen lii waaye rafet na bravo merci Ama ñëwaatal kada yi du jeex de Ama ñëwaatal waaw Ama ñëwaatal Modou mën ngaa toog nii rek Ama ñëwaatal léegi Alaaji Amadou Kati Diop la ñu demandé mu jox ama mbubbam mbubb jox ama mbubbam wax mbubu Amadou Kati mooy jox ama mbubbam

Ah, c'est bon, c'est bon. Merci. Euh, taxawal loolu léegi léegi ama ama ñëwal ama ñëwal paregul enveloppe bii mooy bi ñu teggoon ama delloo nañ ko ko voilà Modou ñëwal Modou ñëwal Modou ñëwal di le vice-président chargé des finances Abdou Aziz Gueye di mooy bu ñu defoon moom loolu delloo nañ ko ko président s'il vous plaît si ngay benn tableau s'il vous plaît cuut benn tableau s'il vous plaît Manga Manga c'est Manga qui décore Ama Baldé c'est Manga qui décore Ama Baldé le président décore Modou Lô oui Manga président ñëwal s'il vous plaît président s'il vous plaît Président, s'il vous plaît. ak yow mii jàmm rek a neex. di nga ménager yi ñu ngi réer jàpp rek ndax ñu ngi delloo xaalis bi nga am du baaxul. ñu ngi réer ménager yi di nga xaalis bañ a def. El Hadj Diagne s'il vous plaît ñëwal. El Hadj Diagne bu Bambey. voilà c'est le président qui décore Modou Lo qui donne Modou Lo son argent. waaw ki décor tableau bi tableau bi moom loo Abdou Aziz ngay jox na ko xaalis ba pare. waaw léegi président dafay jox son excellence El Hadj Dia bu Bambey mu jox mu ñëw son décoration gis ngeen jàpp ni mu neexee. xam naa ni sama mbokku xarit yi sii bi tey moom dinañ nekk tey lu neex tey sama rakk bu jarbaat yi yor si di ngeen nekk di tey lu neex waaw waaw lu neex moom da leen nekk di tey lu neex waaye da leen mascaré da leen calmé yenn saa yi leen affaire yi waaw yenn saa yi nit yaramam tàng mu wax loo xam ne ne dim sutnaa ko rek dëfal ko waaw merci beaucoup merci euh, madame la présidente Sambou champion d'Afrique Isabelle Sambou ci waaw photo de famille voilà photo de famille aca isma voilà président Manga 2 troisième vice-président chargé des livres ça frappe moom moo décoré Ama Baldé le président du CNG moo jox El Hadj Dia bu Bambey mu décoré jox Modou Lo tableau léegi nag ñu def photo de famille ñu def photo de voilà ana dosis tey def na du rëy Amadou Amadou Mbaye amateur yi lii rek ngeen bëgg jàpp rek ngeen bëgg defe naa président bi ménager ba mu kontaan ndax ménager bu benn duggul ñu dëgg mbërëb di nuyu moo ne mi Adama bopp moom itam maa ngi ko nuyu. Gos